Uras Info Ribari Gao Uras Info l'info à temps réel Uras Info Django yu xóot notre force le traitement de l'info eh! ay moom lañuy ñu duppee woon borom jamono alquraanul karim bu daan dox la foo ko fekkaan ay tuttànk wër ko nekkoon su fiyanke dëgg dëddu woon àdduna bile ku kenn ku dul sëriñ saalixu mbàkke moom xaadimu rasuul te yàlla ku ko fàtte rek. ndax kum fàttali du doo tal lu dun ko ñaan yërmandeem ak njëggalam di ko ñaan yërmandeem ak njëggalam di ko ñaan xéewal yu daj ñun ñëpp ñun jaam ñëpp di ñaan xéewal yu daj ñun jaam ñëpp moo ngi gëna won aduna ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru septembre ci atum 1915 ci diwan bu jurbel nitu diina la won bu mak nekkon doomu cheikhul khadim cheikh ahmad bamba mbacke mi ñu duppé won fondateur du mouridisme Cheikh Saalihu Mbàkke ñu gën koo xam ci Serigne Saalihu mooy juróomeelu xalif général des Mourides ne ci atum 1990 moo ngi wuutu woon magam bu tedd ba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke mu nekk ci jal bi ba atum 2007 Serigne Saalihu Mbàkke ku ko wax rek ne alquranul karim ne ku ko daa sonne la tax mu samp fi ay daara yu lim daan soññ ndongo daara yi daan na leen di bëggal saa su nekk bëri na ci ay gox yu mu samp ay daara boole kook ay tool ngir ñu boole liggéey ak jaamu yàlla fu mel na ngot njàppandal njurul wala ndokka yooyu yëpp ay firnde la ci moom Serigne Saliou Mbacké xel xelkom producteur bu mag la woon ne projet bi mu amoon ci wàlluk mbay lu yéeme woon la ne lu tollook quarante cinq mille hectares daal na ko bay at mu yàlla sàkk ngir dimbale jaamu yàlla yi dundal doomu jullit ñi tàggat ndongo yi ngir dëgëral seen liimaan boole kook ñu daldi am yaruk lislaam gis-gisam gu yaatu ci xam jamono tax mu xam ne dëkkuwaay lu am solo la loolu li waral béy na waar wu yaatu jëm ci yàkkali dëkk bu sell bi di tubaa Mbacké tax mu tegoon benn plan ngir samp cent mille parcelles ci dëkk bu sell bi di tubaa Mbacké Serigne Saliou Mbacké liggéey na liggéey bu am solo ci dëkk bu sell bi jëm ci wàllu électricité ànd ak loolu ndoxu taw bi jéem a teg yenn plan ba ni mu daa sonale askan wi mu daldi am ak wàññeent Cheikh Saliou Mbacké mooy xalifa bu mujj nekk doom ci Cheikhul Khadim Cheikh Bamba Mbacké bu mujj wuyu ji boromam 27 décembre ci atum 2007 sët yi tàmbali di toog ci jal bi ki ko fa njëkk a di Cheikh Mouhamadul Amin Bara Mbacké nekk sëtu Cheikhul Khadim Ahmad Bamba Mbacke Serigne Salihu mbàkke ku lislaam bi doon tiitaroo la rawatina yoonu murit ngir ay jikko yu sell jikko yu rafet fonkoon téere yàlla bi di alquranul karim ba mu jaraloon ko lu ne nii mu fonke woon diineem ba di ci suuxat ndaw ñi nii la fonke woon liggéey ngir gëmloo société bi ne jaamu yàlla ak liggéey dong lañu am ci àdduna noon ni la nekke ba mu wuy ji boromam tax ñuy ñaan yàlla tas ñu ci barkeem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 بترتيل قرآن عزيم يخي كربا كتاب به مساك مستغنيا به غريبا وأنساني المصيبات والكربات Info Ribari Gao te Uras Info l'info à temps réel Uras Info jàngat yu notre force le traitement de l'info